Imam Chérif Mballo ñu ngi lay nuyu. Euh, ñu ngi lay fay euh, soxna su si. ñu am mbégte lool dalal la ci réew mi FM tey ngay secrétaire général campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine ni ma ko waxee sànq. Imam li waral nag tey ñu bëgg a waxtaan ak yow mooy fitna gi yeewaat diggante Israël ak Palestine ca euh, njalbeen nga la ko sabab bokk na ci kon fitna gi yeewu fan yi ay njabootu palestinien yoo xam ni dañu leen a bëgg a jëlee ca Jérusalem Est ay colon israélien bëgg a def loolu mi nag euh, mel ni luy ëpp loxo ndax euh, manifester yi amoon euh, police bu Israël da ca yëkkati loxoom àdduna bi nag ñu bari jàpp ne yooyalee kon mani répression dafa diis lool ba jéggi dayoo situation bi fi mu toll tey noo ko jàngatee. jërëjëf soxna su baax si ñu ngi leen di bu baax di ziare auditeurs yëpp fu ñu mën a nekk yu rajo Réew mi FM. Euh, di am mbégte lool di partager ak yow yiñ euh, ci xam ci suñuy information mm-hmm. li jiitu mooy comme ni nga ko waxee léegi rek mooy heure yi nga xam ne mooy mbéjo bi am diggante euh, palestiniens yi ak israéliens yi mm-hmm. fii nga xam ne moom mooy Jérusalem Jérusalem mooy Beytul Maqdis nga xam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam fa la njëkk a julli di julli mm-hmm. lu mat fukki weer ak juróom-ñaar mu nekk loo xam ne moom mooy ñetteel bi euh, dëkk boo xam ne moo gën a euh, am euh, sacralité moom la ñu gën a ormal ci l'islam gannaaw Makka ak Médine waaye aussi mu nekk dëkk boo xamante ne ni waaso yi dañ fa bari ak religion yi muy religion chrétienne ak religion juive ak bu l'islam donc li nga xamante nag mooy li fa xew tey nga xam ne ñëpp dañu koy métitlu d'ailleurs sax maa ngi jot information léegi que ne ñi nga xam ne ñoo ñooy armée israélienne sioniste yi dugg nañu ci biir Beytul Maqdis jamono ji waaw ci jamono ji ñi may wax ak yow mu nekk loo xam ne précédent bu dangereux la hmm. euh, moo tax fenn fu nekk euh, julit ñi dañu war a jóg yeewu taxawu nekk benn ak ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi ak juif yi baax yi ak chrétiens yi ñoom ñëpp ñu taxaw pour fexe ba nga xam ne li nga xam ne moom mooy provocation yu régime israélien bi di def euh, nga xam ne jubluwu ci lu dul jël ay euh, li nga xam ne ay suuf ay moomeel yoo xam ne palestiniens yi ñoo ko moom te ñoo fa dëkkoon lu yàgg euh, moo tax ñu war a euh, leeral tuuti rek ci gàttal hmm. mooy ne li nga xamante ne ni mooy décision bi palestine israéliens yi jël nekkul lu tegu ci yoon te dafay violer li nga xam ne moom mooy charte mbootaayu xeet bi nga xam ne ci droit international ci ay résolution yoo xam ne def na ko depuis 1947 Euh, ci résolution cent quatre vingt ci assemblée générale des nations unies li nga xam ne moom mooy euh, dëkk boobu mooy Beytil Maqdis mm-hmm. nga xam ne dafa am statut boo xamante ne kenn mënu ko séparer benn entité la boo xamante ne ni benn diine moomu ko benn nationalité moomu ko benn état moomu ko donc bi nga xamante ne nag en 1948 Israël ci la annexé maanaam partie bi nga xam ne mooy sow ci ci Jérusalem ak bi nga xamante ne moom mooy ci penku bi Jérusalem gannaaw bi nga xam ne mille neuf cent quarante huit quarante sept euh, mille neuf cent soixante sept euh, am na donc loolu aussi ñu condamné ko ci résolution bu vingt deux euh, cinquante trois bu Nations Unies loolu teewul Israël mi ngi continuer toujours di def li ko neex te loolu nga xam ne moom mooy résolution boobu dane woon kenn amul droit maanaam muy Israël muy keneen di nangu di foqati ci doole li nga xamante ne ni moom mooy suufu keneen donc mu nekk ay mesures yoo xamante ne ay dispositions législatives ak administratives yoo xamante ne ni tey Israël def ko jël te duggewu ci lu dul bëgg a li nga xamante ne ni mooy statut juridique nga xam ne Jérusalem nga xam ne euh, euh, loolu moom mooy li waat donc euh, ci biir loolu rappel dañuy wax rek di fàttali ne Euh, li indi tey mbir mi tey nga xam ne mooy xeex ñu ci gën a bari blessé ci ñu dem ba tey comme ni ma ko waxee dugg ci Beytul Maqdis mooy ne euh, dafa am benn tribunal boo xam ne bu Jérusalem muy Beytul Maqdis moom moo génne benn atte boo xamante ne daf ko jox ay famille yoo xamante ne famille yahud la yoo xam ne sioniste parce que bu ñu jaawale juif ak sioniste juif yi ñu ne ñoom même racine la sioniste yi beneen idéologie la boo xam ne dafa wutee ak li nga xam ne mooy judaïsme mm. si famille yooyu nag dañuy revendiquer li nga xam ne mooy droit de propriété ci quartier boobu te boo dee xool famille ay famille française la américaine canadienne ak loolu du ñu koy wax mais loolu moom moo nekk te ñooñu donc suuf soosu ñoom fi ñu jógee ñoom foofu la ñu moom waaye moomuñu fi nga xam ne ñu dañ fa dëkk des milliers d'années loolu nekk ay junni junni at famille yooyu nag euh, euh, euh, li ko indi mooy dafa am benn loi boo xam ne loi bu xaw a doy la bu bu taggatémbe boo xam ne ñoom ci seen jëmu bopp ñoom ñoo wax ne képp koo xam ne nee nga ci yahut nga euh, te nga mën a wone sa famille mën a wone ne ñoom dëkkoon nañ fa li jiitu guerre 1948 kooku boo laajee tribunal pour ne sa suuf danga ko bëgg a jëlaat kooku mën nañ la ko joxaat te alors que palestiniens yi ñu fa fekk ñoom ña nga foon aussi ñoom it ay junni junni at. Mm. donc xam nga loolu mu nekk lu doy waar. Mm. may wax rek ne famille yooyu mooy ay famille yi ñu bëgg a nangu ñeenti famille la. Mm. mooy al kurd ak euh, iskafi ak qasim ak jawini donc tribunal boobu dafa exiger nañ nañ leen dàq donc loolu moom moo tax. moo indi problème bi nga xamante ne ni tey moom la ñuy dund fii ci ci ci ci notamment ci Jérusalem muy Beytul Maqdis mhm. alors ñu gis ne nag euh, Jérusalem euh, googale àdduna euh, bi yëpp ñu ngi ciy wax Nations Unies États-Unis li mujjee xew ni sax génnee nañ ci ay communiqué Iran moom wax ni mbir mi crime de guerre la ko jàppee communiqué nag la daanaka communauté internationale bi def est-ce que gis nga ne loolu doy na comme réaction par rapport ak li xew tey ci Jérusalem doyul euh, comme ni nga ko xamee doyul comme réaction euh, daanaka ñëpp a ngi réagir parce que Israël tey. Mm. dañu ko euh, reewal dañu ko ba nga xamante ne ni. comme ni ma ko neex def. Mm. ya a huit cent plus de huit cent résolutions yoo xam ne depuis mille neuf cent quarante huit ñu ngi koy voté contre Israël waaye Israël respecté wu ci benn te li ko ki ko jàppale moom mooy Amérique ak Europe. tu vois donc ñooñu ñoom ñooy jàppale toujours Israël. donc lan moo làqu ci ginnaaw ba tax moom muy joxalee nu ko neex du respecter benn euh, comme ni nga ko waxee. décision bu nu jël. mooy Amérique ak Europe. Hmm. de manière générale Amérique nag euh, comme moom mooy premier ki nga xamante ne mooy allié mooy ànd ndoog moom. Hmm. même bu dee réagir na mën nañ ne réagisation euh, réaction bu positive la. Hmm. ma mën nañ ko nangu waaye daf du doyul. dafa war a jàpp ci loxo Israël ne ko li ngay def du noonu bàyyil li ngay def donc nga gis loolu woote na aussi les Nations Unies woote nañu euh, même ba ci Union européenne woote na yenn pays arabes yi nga xam ne ñu ngi am ak Israël relation lu mel ni Bahreïn Maroc Soudan yooyu yëpp woote nañu waaye bi nga xam ne moom lañ ci gën a seetantal nga xam ne am na solo mooy la Jordanie mm-hmm. nga xamante ne ni dafa wax annoncé ne li fa xew Israël violation barbare la hmm. maanaam loo xam ne teguwul ci nite euh, ci daanaka jëfu jëfundiku jëfu njaay àll la hmm. donc Israël boobu nag comme ça laaj moom mooy li ko ki ko reewal ki nga xamante ne ni moom moo ko yóbbu ci situation bi nga xam ne mën na def lu ko neex te dara du ko ci fekk mooy États-Unis hmm. parce que même Europe même bu ñu ànd ak moom ci deuxième degré la mais ki nga xam ne moom ci tout dafa am soutien total et inconditionnel moom mooy eh, eh, eh, les États-Unis parce que Israël moom mooy ki nga xamante ne ni base avancée wu li nga xam ne moom mooy pays bi défendre seen intérêt ñoom géostratégique hmm. ci région wu ak Moyen-Orient bi nga xam ne Israël moo fa nekk te ñëpp xam nañ richesse yi fa nekk ak ni nga xamante ne ni ni mu névralgique ni muy jouer sur l'économie mondiale mu teg fa Israël pour mu di ko contrôler li nga xamante ne moo fay xew donc moo tax lu Israël def rek neex na ko dafa mel ni rek euh, euh, euh, doomam kenn du ko laal Mhm. alors tey ci altine bi la cour suprême bu Israël waroon na joxe àtteem ci njabootu palestinien yooyu nga xam ni war nañu leen a yëkkati tey itam euh, nekk bés bu particulier ndax journée Jérusalem tey la ko juif yi di célébrer euh, mu yemook fitna gi gën a yokk yaa ngi koy wax sànq policier yu Israël dugg nañu ca euh, baytil maqdis fi mu ne al aqsa ja nga fay soqi ay tiir ci li ñu jot ci xibaar ba doomu Palestine sax neenu ñàkk na fa bakkanam tey ji ci suba loolu hmm. koy ñu ngi koy ragal tey ji yow lan ngay xaar ginnaaw àtte bi ak itam altineb tey ji ak li mu ëmb yépp euh, ngir waa Palestine waaw waaw dëgg la ndaxte justice israélienne dañ ne woon euh, démb te mu woon nañu tey dinañ ko duñu ko def dañ koy reporter mm. maanaam ba euh, mooy tey altine bi dañ koy reporter ba nga xamante ne ni xëy na fii ak trente jours mooy maanaam bala weer wi di jeex mm-hmm. dinañu dinañu jësaat beneen bis boo xam ne ci la ñuy atte atte bi mu jeex mm. mais xam nga loolu nekkul lu yomb actuellement ci Israël mm. parce que li tax du dara mooy Israël dafa am ay menaces existentielles yu ko wër aji nekk ci biiram mm. biiram mooy instabilité politique boo xam ne am na am nekk ci mënatuñoo def gouvernement boo xam ne dañu ko nangu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shataan ko te alquran di waxe mm-hmm. boo leen gisee da nga yaakaar ne benn bloc la bo bu bu bu ko compact waaye mm-hmm. fekk dafa am divergence yu bari yu nekk seen biir mm-hmm. donc moo tax actuellement gouvernement Netanyahu mënatul dem ñu jël eh, Yair Lapid ak ki nga xamante ne ni moom mooy eh, Bennett eh, Euh, ñoom ñëpp ñu mën a former gouvernement donc loolu instabilité wu depuis deux ans dañ ko constaté beneen bi mooy menace extérieure yi nga xam ne mooy yi yi tandemu Iran ak euh, Syrie am ci front est également Hezbollah ci front nord ak Hamas ci fi nga xamante ne ni mooy Gaza mayul Israël actuellement mu ñemee def euh, acte bu mel nii mu fësal ko mu bu ko defee loolu dafay gën yokk ci ay problème te Israël àttanul loolu moo tax muy essayer wut une solution politique à la place d'une solution juri judiciaire ou juridique. Mmh. waa campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine li ngeen di def depuis fii ci Ndakaaru ban njeexital la mun a am euh, ngir waa Palestine. waaw comme ni nga ko xamee xam nga Sénégal ñu nag campagne bi la campagne sénégalaise pour la. défense de d'Al-Quds ak El euh, Pasin kooku dafa am benn tradition boo xam ne bu mu yàgg a boo xam ne fi lañ ko fekk ci sunuy euh, devancier illustre devancier comme ñoom sëñ Moustapha Cissé Boufir euh, yal na ko yàlla yokk leer ñoom euh, des ambassadeurs comme ñoom Massamba Saré euh, ñoom Ibra Degenka et consort ñoo xamante ne ni ñoom El Hadji Samsidine Ndoye nga xam ne c'est de de grands de grands ambassadeurs diplomates chevronnés taxawaay boobu ñu yàgg a taxaw moo indi ba ci ci jamono waa sérit ñoom euh, professeur Iba Der Thiam docteur Daouda euh, euh, ñoom docteur Siré Ly ñoom euh, sëñ Maodo si bu euh, Abdoul Aziz Dabakh nga xam ne jamono yooyu ñun ñoo doon wàllu organisation bi donc tradition la boo xamante ne dafa continuer ak le professeur Malick Ndiaye ñun ñëpp ak des universitaires des syndicats des partis politiques saa yoo xamante ne ab euh, Palestine am na lu ko dal rek da ngay gis dañuy taxaw pour taxaw ñafe ko donc campagne boobu continuité wu yooyu mouvement la mm. moo tax à chaque fois dañu koy organiser te xam nga Sénégal munul bañ a maanaam euh, euh, euh, yëngatu ci ci ci cause bi parce que mooy pays bi nga xam ne moom moo dirigé le le le comité des Nations Unies pour la défense euh, de la noble cause palestinienne c'est-à-dire les droits inaliénables di peuple palestinien donc te xam ngeen aussi Sénégal en 1975 moo njëkk ubbi représentation diplomatique fii ci Palestine ci ci Sénégal hmm. en moom moo njëkk a pour ci ci ci ingénieur ji tam ci audace ci sagesse diplomatique am fexe jox euh, passeport diplomatique Yasser Arafat pour muy man di dem di fekkee li nga xam ne moom mooy ay réunion di bokk de par le monde euh, li nga xam ne pour mën a défendre la cause palestinienne. 1977 mm. daf ko dafa ubbi représentation diplomatique loo xam ne pays arabe sax musuñu xalaat lu demee noonu donc pays bu mel noonu. boo ci nekkee euh, lu mel ni campagne sénégalaise pour la défense euh, de la cause palestinienne man ma nekk secrétaire général bi mënuñu ci yàq yëngatu ci lu mel noonu te aussi dañuy ñaalaale président de la république l'état du Sénégal nga xam ne moom mooy dirigé depuis 1975 euh, la le comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien dañu prononcé wu de manière ferme euh, euh, sans ambages ci agissement yi nga xamante ni yëngut yi nga xam ne yu ñàkk solo yi Israël di def contre les Palestiniens. justement tey gis nañu ci yenn kaay ambassadeur bu bu Palestine ci Ndakaaru euh, yëkkati mm. yooyu càkkuteef di wax li ñuy mm-hmm. xaar surtout ci Sénégal. Euh, ci wàllu woowu. oui effectivement parce que loolu mooy li logique. Hmm. parce que Sénégal moom moo ëmb euh, moom moo jiite euh, kii boobu euh, comité boobu te Sénégal dafa yàgg yëngu ci ci que muy ci wàllu état wala ci wàllu peuple pour soutenir la Palestine amul kenn koo xam ne yaa ngi ci Sénégal te soutenir la Palestine donc am ceeg état bi donc foofu dañuy laaj encore à l'instar des autres de la communauté internationale wala une partie ñi xam ne dañuy wax ne nañu arrêter la les violences Israël na dellu fi mu nekkoon te bàyyi caaxaan yi donc dañuy demander aussi le gouvernement du Sénégal moom it mu mu mu mu taxawu taxawaay boobu condamner euh, Israël le gouvernement sioniste d'Israël mais également demander à ce que l'Union africaine ñoom it dañuy def benn motion wala résolution de soutien à la Palestine parce que loolu bu ko defee dina am solo trop te dina gën a dëgëralaatal yoon bi nga xam ne moom la Sénégal yàgg jël pour di défendre cause bi nga xamante ne mooy la cause palestinienne. Mhm. Imaam laaj bu mujj bi ndax yaakaaroon ne àddina bi war nañu peut-être am benn mesure bu urgente bu ñuy jël ndax euh, ñi fa amee gaañu gaañu gannaaw ñi faatu yëpp taxul Israël mën a may équipe secours yi ñu mën a wallu ñi nga xam ne ñoom ñoo fa amee loraange croissant rouge bu Palestine mënta mhm. jote ci ñi nga xam ne ñooy blessé yi ba ba wallu leen loola itam ndax mënta jur leneen. ah kay xam nga fi mu nekk nii moom mbir mi situation bi nee nañu depuis 2017 musul mel am am mel nii jël hmm. am parce que weekend bi ñu génn moom waaw mi ngi noonu hmm. man am naa occasion euh, dem participer ci des dans des conférences internationales sur la Palestine muy ci Iran muy ci Irak muy ci Liban euh, ak dajeeg mbooleem ñi nga xam ni ñooy faction palestinienne yi donc euh, lu mel ni musul am donc mu nekk problème boo xamante ne ne un précédent très dangereux pour la même survie de d'Israël parce que menaces yi ma la wax yu am la mm-hmm. ay menaces existentielles la mm-hmm. te tey ci il est dans l'intérêt de tous que ñu cultiver la paix paix am jàmm am dal am bu ko defee kenn ku ci nekk ñu essayer fexe parce que am na yoo xam ne négociation rek politique politico diplomatique rek lañ ko mën a defee mm-hmm. moo tax dañuy woo communauté internationale bi ñu continuer bañ rek yem ci di appeler ak condamner waaye ñu agir bu ko defee surtout les Nations Unies. Mhm. ñu agir bu ko defee ñi nga xam ne ñooy blessé yi ñi rey mu bañ a continuer parce que je sais que actuellement nii. Mhm. bu continuer day gën a exacerbé wu day gën a jaxasoo day gën a yëkkati ci kaw. Mhm. te dee da mën na gën a yokku ak ñi nga xamante ne ñu blessé te li ci waruloon a am man na am parce que léegi ya a une nouvelle donne. Mm. mooy ne ñi nga xam ne ay xeer rek lañ doon sànni léegi dañu yor ay jumla. dañu yor mm. ak ngànnaay comme yu israéliens même bu dee israéliens ëpp doole. waaye mën nañu faire face donc gis nga menace mi ngi euh, bi jóge ci Hamas ak ci jihad islamique ak les autres factions palestiniennes parce que mën nañu indil pour instabilité Israël hmm. donc loolu moom moo tax euh, il est dans l'intérêt de tous que ñu culturer la paix fexe jàmm delsi ñi nga xam ne dañoo feebar euh, dañu leen gaañ faj leen les Nations Unies ak Union européenne nga xam ne ñoom ñooy léeg-léeg ñooy financé jël leen en charge bu ko defee Euh, fexe nag woñaar la ko Israël mais malheureusement Israël pour nga am pression ci moom dafa difficile ndax le lobby sioniste ak États-Unis gis nga sax ci jamono Trump ni mu meloon nga xam ne doo ko laal mais bii sax xaw na tane tuuti ak Biden mais nañu góorgóorlu gën leen encouragé fexe ba nga xam ne dina am ay pression yoo xamante ne ni waroon na mën a joge ci ñun musulmans mais malheureusement gis nga l'Arabie saoudite le mhm. le les le les les Émirats arabes unis ak yeneen pays yëpp maanaam ni ñu demee tafu ci ginnaaw Israël loolu aussi gën na may Israël doole. Mhm. pour que mu def li nga xamante ne moom lay def moo tax sunu soppe yu dof yi ñoom ñooy dimbali sunu noon yu muus yi malheureusement. Mhm. jërëjëf Imam Cherif Mballo amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay secrétaire général euh, bu campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine ñu ngi lay gërëm. jërëjëf jërëjëf soxna Touba Seye. macha allah